il y l'esprit et la lettre un mandat de cinq ans. waaw moom waaw du moom moo ñu waxoon ne sax moom ñaar ñaar lay def moom tam du moom moo ñu ko waxoon. waaw bu ko waxee. lan la ko conseil constitutionnel tontu. du yow yaay naan nii ngay def ak nii. mais bu mujj bi dañu woon ñaari mandat bi mu def deux mille vingt dix neuf dañu woon. waaw nañ ma xaar fi ba mu des mbiru troisième mandat. waaw d' accord xam nga bu ko waxoon. waaw bu ko waxoon. Hmm. moom dafa wax mais conseil constitutionnel moo ñu tënk ñun ñëpp moo ñu tënk. nous préférons des institutions fortes à des hommes te wax munul tax ba institution flanché parce que institution moo wund nit kooku ñàdd ko ni mu ñu ñàdd ñun ñëpp. ok ñu dem ñu dem ci dund dund gi. léegi nga ne affaire dund donc euh, dafa di loo xam ne lii àddina bi yëpp la laal mais nag le Sénégal n'est pas exempt. mais fii dafee rawee de. Ah, Pape Mamadou fii dafee almet bi soccu sax soccu sax dafa yokk dinaa la ci sawar a tontu bu baax a baax a baax a baax. atia ñu dem waaw. dund gi cher na. xam nga dañ ne y a des facteurs exogènes maanaam yoo xam ne yii du ci ñun la jógee. dont la guerre en Ukraine. lu nekk la. Mhm. kenn mënu ko nii. du dëgg nga jóge ci guerre Ukraine ñu jóge ci Covid yooyu yëpp c'est des facteurs exogènes qui rendent la vie extrêmement difficile kenn mënu ko nii mais nag. barki démb quand ma fille jóge Paris ñëw ne ma papa fii am na moutarde c'est quelle mooy fii am na moutarde parce que fa ñu nekk ñu amul moutarde dafa gisuñu ko diwlin am na ma ne mais yow attends qu'est-ce que tu comme ça mu ne ma papa les choses ont flambé kenn mënatu ci jeeg dara dafa metti ndeem dëkk yooyu ñoo yuuxu ëpp ñu doole fuuf ma ñun mais nag quand les bailleurs internationaux teggi la péréquation le soutien bi nga xam ne moom lañu doon defal Macky Sall est obligé de faire face à la flambée des prix mu ngi ciy liggéey dama ne ci état lépp priorité la tout est priorité au sein de l'état yaa gën a xam li may wax lépp priorité la léegi nag na gën a góor góorlu pour seet nu muy alléger souffrance yi 2008 ah, parce que ñu sonn nañ de. je sais 2012. 2012 mhm. la ñu yegg si au pouvoir Sall dafa freiner l'inflation pendant combien d'années waay waay waay nit fàttaliku dafa baax fàttaliku dafa baax ci loo gis 2012 ba léegi la soo wax dund gi dund gi dund gi dund gi yàgg na de dafa def ba lu bari ci li mu defoon nit ñi dañ koo fàtte la première mesure bi doon sonal nit ñi lool. pour def une petite digression c'était les vignettes nit ñi dañu fàtte vignette sonaloon nañ nit ñi foo dem nit ñaa ngi rang rang rang ba mu yegg si moom la njëkk a teggi loolu dellu si na dans la poche di boroom oto mu war ko dugalaat peut-être ci biir këram moo xam fan la ko yóbbu et selon les de véhicules kon nag man li may ñaan mooy mu dolli. Mhm. nga gën a góor góorlu mais ku ne deful ndax nga sa bopp muy góorgóorlu bu baax a baax a baax. ci dund ah war na gën a dolli ah, parce que yaakaar naa loolu tamit benn adversaire la. moo tax bàyyiwul xel mais mu ngi góorgóorlu mun na mun na ko sonal. très franchement mu ngi mm-hmm. góorgóorlu. xam nga boo xoolee tey ba mu yegsee dafa ne ceeb gerte fii la toll woon dañu jéem wut autosuffisance en riz et en arachide. boo ñu yegsi ñu ngi woon ci ay cinq mille et quelques cinq cent mille et quelques am déet ci ci ci ceeb. aujourd'hui nous sommes à un million presque trois cent ou deux cent un million deux cent trois cent mille tonnes gerte gi pareil mais mu ngi góor góorgóorlu xoolal li mu def dans l'agriculture mosul am man ba may nekk élève laa wax de waxuma étudiant ba may nekk élève les moissonneuses batteuses Amérique laa ko daan gis nañ waxante dëgg Amérique laa ko daan gis ba léegi am na nag ñi ñi ñi béye ak u ak daba ah ni ngoos ngoos ngoos ngoos ba léegi am na fi nag de dama ne waaw yooyu yooyu tamit yooyu tamit war nañ ci wax mu jóg fi nag loolu fa ma ko daan gisee Amérique laa ko image boobu mos ma dem Amérique ba na ma fa dem ba gis ko le Dairy Belt et Corn Belt après laa ko gis ñu indi ko fii au Sénégal di ci liggéeyu liggéey bu mucc ayib mais nag loolu daanu dajul suuf <laughs> daanu dajul suuf lépp loo gis c'est graduel. ok les femmes. Mhm. man mii def naa ko étant jeune yóbbu ma ci sama maam Afajut dama doon dëbb. lay daw jàngi def naa loolu loolu amatul amatul Fajut c'est fini. amatul. non ci biir ci Sénégal de profondeur am na fa ba léegi. mais ah. am na am na zone yu ko gën a am na yu ko gën a ruqe ah. mais moo tax ma ne la même loolu. dina yegg si xam nga am na ay villages yu bari yoo xam ne xamuñu woon luy électricité. Mhm. xamuñu woon ndox mu sedd. te xam nañu ko tey te yàlla ak Macky sàll moo tax l'électrification rurale c'est grâce à loolu yëpp am kon nag nit bu defee da nga neen waaw góor lekk gi noom metti na dund gi cher na mais nag il faut aussi que ñenn ñi choisir la ñu lekk xam nga da nga ñëw naan mais ceebu mbéy mi waaye ah, du ma lekk ceebu mbéy mi mais yaa xam. booy lekk ceeb bu cher ça c'est un problème mais kii lekk ceebu mbéy mi mais day lekk ba suur te dafa baax très digeste. mais parfois on parle de problème de qualité dafay am ah. ceebu mbay beek ceeb bi nga xam ne dañ ci biir réew mi. gis nga nit fàttaliku dafa baax maa étant jeune daan naa gis sama yaay yal na ko yàlla yërëm bu ñu tànn ceeb kawas la ñu jël di ko bomb ci ceeb bi boo ne yaay lii la boo ne nii nga gis gunóor yeeg sax yëpp takk ci kawas bi. Mhm. ñu faxas. moom lañ doon lekk ñaata at la ceeb boobu doon def en Europe est-ce que xam nañ xamuñu ko mais aujourd'hui da ngay ñëw ñu bind la saako bi ñu produire fii date d'expiration 2024. weex tal qualité baa des nag. bu fekkee ba léegi dañuy tànn ba di fi bàyyi ceeb bi moom. mais qualité problème qualité moo posé parce que suñ ko doon liggéey mu mel ni comme ceeb ba ñuy jëlee bitim réew. liggéey bi dafa mucc ayib yaa même du laser buy tànn pep saleté ci ceeb bi c'est du laser moo koy baa ngi fii c'est que c'est une question de choix et que ñëpp yow boo yoree budget wu cent franc. mais même boobu sax dafa cher. ceeb ceeb ceeb bi ñu bàyyi si réew mi dëkk réew <laughs> ci bi ci réew mi moo gën a yomb tuuti bi ñu dëkk bi kilo bi lu muy jar trois cent franc beneen bi lu mu jar presque le double. Hmm. mais yéen tamit lan ngeen bëggoo y a des intrants et il faut les amortir aussi metti na mais mu ngi def li mu war a def. intrant yi nag vous pensez que c'est gratuit comme sax dañ koy joxe mu kii mais non dama ne état lépp priorité la lépp priorité la te lu nekk priorité doo ko bàyyi ginnaaw. merci Pape Mamadou Ba coordonnateur APR bu jëppal Derklé mu amoon mbégte bu baax di bokk ak jotaa bi lan mooy sa mot de la fin. donc euh, le mot de la fin mooy sénégalais yi lay waxal roy lu nu rek pire baaxul. la nga ne jàkk teg sa bët mu ne jaxaran mu wóor la ne kii njëriñu réew mi la nga gis ko ci